waaw léegi dañu ñëw euh, ak euh, benn membre. dëkk fii Ngaye Mekhe di pratiquer la danse alpulaar nekk en classe de première euh, di ànd ak Cheikh suñu ménager di booy booy comme ça booy sama élève lañ daal loolu mën a mais fecc bi daal moo nekk loo xamante ne ñun bëgg nañ ko bëgg nañ ko trop kon nag bëgg nañ ko jàppale képp koo xam ne dina fi ñëw nañ jàppale incha allah. Hmm. ok euh, li ma la bëggoon laaj mooy depuis kañ nga commencé pratiquer la danse. man depuis bi may am sept ans laa tàmbalee mu fecc ànd ak samay grand frère ñoom sax xanaa léegi ku nekk am na ci loo jàpp ak yooyu ñu àndoon di def di fecc ñu nekkee xale yu ndaw ma daan leen gis ñu répété. c'est ñoom bu ñu daan répété nag gaale lañu daan répété moo tax affaire bi gën ma motivé pour ma gën ko bëgg. te ci lañ commencé nag ñoom di ànd ak man ñuy dem bu ñuy presse ñoom di ma yóbbaale. kii mais presque benn séance bu ndaw wàcc ci laa ko toppee def noonu def noonu ba benn instant ma ne pourquoi pas man ak euh, kii Cheikh suñu ménagère ñu ànd daal di def euh, benn groupe ci def suñu groupe bi ñu koy commencé mi ngi doon groupe de trois personnes mu nekkoon euh, man Cheikh ak Babacar sama benn grand frère mais moom di fecc di fecc ba ci benn instant mais ñun moom bi ñu daan fecc kii daan fecc ci école yi école rek naa fekk jéeg gis ko parce que affaire xale la woon rek ñu ko jàpp affaire bi ñu ba benn instant nag affaire bi ñu xam ne kii na dëgg na ko ñu ci commencé dem di ànd ak parfois école yi bu ñuy dem ay club espagnol yooyu ay mbuur yooyu di ànd di fecc jéeg yooyu. ok noonu lay demee léegi li ma bëggoon xam mooy euh, depuis bi nga commencé def euh, danse bi mm. euh, ba xam moom est-ce que yàgg nga génn. wala ba xam si Fosco yi ngay fecc wala nan la fa dem waaw ñu dañuy fecc fos Fosco yi mais parfois dañuy invité ay Thiès wala ñu invité ñu ay euh, ay Mbour ci école yi quoi ñu ànd ak école yi dem di prester mais ba léegi daal nekkagul loo xamante ne génn nañ ay compétition ak yooyu dañuy ànd école yi wala ñu invité ñu ay podium Thiès ay petit podium podium yu ndaw yi rek mooy loolu mais fecce buñ loo xam ne

afro rek ah ok léegi yow euh, ban message ngay lancé ñi euh, nga xam peut-être muy autorité yi ak ñi nga xam ne peut-être comprendre gu ñu euh, danse ko fii nii au niveau de Mekke bon mën nga mën nga mën nga mën nga am loo ci wax léegi après tamit bon ñu jox manager mu kii. waaw waaw léegi ñoom koy man li ma leen mën a wax rek mooy ñu comprendre danse bi du affaire de foog wala mu nekk loo xamante ne dañ ci jël pour mais dafa nekk loo xamante ne mën na mën na indi leneen. Hmm. ñu bëgg ñu jàppale ci ñu ci bu baax xam ne ñun ay jeune lañ ay ndaw lañ te ndaw moom fu ne nga mën a réussir lu nekk xaj na ci léegi nag man li ci des moom damay bàyyi suñu ménagère rek mu daal ci gën a gën cee sori. ok sànq maa ngi doon wax naan ak euh, Lom muy membre ci euh, tous ces juniors ah. ok bon mi ngi doon wax euh, mi ngi doon lancé message moom am importance comme autorité yi wala yeneen ñi nga xam ni bon bëgg nañ danse en plus bëgg nañ jàppale jeunes yi. léegi ñu ni ak euh, Cheikh Gueye ah. léegi da bëgg nga fekk lom fekkente ne message bu xam ko bëgg wax autorité ak euh, ñi nga xam ni bon peut être comprendre ñu jeunes ya si euh, kii bi ni def aar bi aar bi ñuy def puy yow la yow nga wax si loolu moom mën naa ne am lu lu ci war a wax sax lu ma ci lépp luma ma ci wax rek doyul parce que boo xoolee fii nii li li gën a tax sax groupe bi demeewul si parent yi duñ comprendre quoi duñ comprendre pour ñëw buñ nee fecc rek ñu ne sama doom day fecc yàqu na alors que demeewul noonu danse bi mën na ànd ak études yi nice même bu fekkee jàng aussi leneen ngay def mën nga ko boole ak danse bi du la yàqal dara parce que boo xoolee répétition yi ngoon yi lay nekk ay à partir de 17 heures heure yooyu noonu mën nga ñëw répété boo yeggaatee sa gaale nekk su li nga nekk du la yàqal dara di lancer waale aussi benn message parce que ñun dañu instant bi ñun affaire dañoo bëgg mu gën a large daal gën a yaatu moo tax ñu créer beneen euh, team boo xam ne mën naa ni ñu ngi ko tuddee Two Seasons Dance Team loolu lañ ko tuddee daaw lañ ko commencé woon commencé def ay répétition mais dañ ko mujjoon a sax arrêté parce que dañu amoon ay problème ay genre yooyu noonu ñu arrêté ko mais vacances yi di ñëwaat bëgg naa ko tijjiwaat képp koo xam ni da nga bëgg danse da nga bëgg danse mën nga ñëw salle de fête la ñuy répété mooy loolu noonu du la yàqal dara ñu danse daal parce que ay compétition day am ay Thiès fii ni ay battle Kajoor genre yooyu noonu ay battle national di am battle yu bëri day am ñu dañuy jot ci information yi mais duñu mën a dem parce que amuñu groupe bu bu bu soudé daal moo tax ma bëgg képp koo xam ni danse intéressé na la boo ñëwee incha allah dinañ def ci yow lépp luñ mën mooy lool noonu daal ba ba ba nga mën danse après pour ñu mën a bokk si compétition ak yooyu noonu di waxaale aussi bonne volonté yi nekk si dëkk bi maanaam aar dafa nekk loo xam ni dafa metti surtout fii nii ñun ci zone bi ñu nekk nii parce que da ngay nekk ci bi di joob yow kese kenn du la dimbali doo geesu ba gis kenn yow kese yaa si nekk di joob di rayante mooy loolu noonu te maanaam lépp looy def daal boo xam amee ku la si jàppale day gën a neex rek mais du si yàq dara aar bi yaatu na kenn kenn benn nit mënul lépp ñun kese mënuñoo def lépp il faut gars yi dañuy jàppale lu ñu waaye mun a jàppale nañu ko jàppale mooy lool noonu ñun daal bëgg nañoo sigil ngaay bëgg nañoo représenté ngaay compétition nationale mooy loolu ak baalkat yooyu ubbi nañ nag suñu porte ku bëgg a ñëw def danse ñëwal hmm. mooy loolu da nga fekk incha allah